rek le capitaine mu taaru mu taaru bi neex na waaw neex na kay neex moom <laughs> nag ngeen tourné tey jii trop waaw mbégte rek kontaan rek bilaay bu rek ak foot local bi bilaay ñu jaayante ko doo fexe indi ko bi quoi mu taaru bu ñëwee si final bi doon na final bu métti ngeen ñëw ba tiro bi nga dañ gëmoon nii métti lu métti métti métti ak ñoom ñu indi seen supporter supporter dañ gëmoon nañ génn mais comme man maay leader tamit pour may penalty man maay def assuré pour may booy fit ma dem dóor dugal booy mën am fit ñëw dóor alhamdulilah lan moo waxtaan bi avant final waxtaan na ni carrément ne coupe bi day dem Sénégal wallahi lazim dañ ko gëmoon billahi wallahi taala mën nañu wax équipe A bi exprimé na leen ma moo tax boo déggoo sama sama sama conférence wax naa ko uh-huh. équipe A bi dañ ko def Eh, si mais wuy ma. Fatick yëg-yëg bi lan la. bi sincèrement c'est c'est émouvant billaahi wax dëgg fa yàlla neex na trop trop trop trop ci xol. et kontaan nañ tamit trop trop ci Sénégalais yi parce que gis nañ message yi ñu fay recevoir xam nga euh, jàppale nañu depuis du début à la fin sincèrement on n'a pas sincèrement waaw. A, on va dire. ah oui presque parce que même bi ñu fa demee gars yi loolu lañ leen wax. ne nañ équipe euh, Afrique fii nii équipe musul jël CAN ñëw tekki CHAN donc nous on a pu pu le faire donc on remercie le bon Dieu et puis on remercie aussi les Sénégalais. 6 février 4 février deux dates historiques qui vont rester à jamais dans la ouais. du football. Oui oui sincèrement ça va rester ça va être gravé dans le football sénégalais sincèrement. et tamit c'est émouvant loolu loolu rek lañ mënoon defal sénégalais yi pour ngeen kontaan parce que jàppale ngeen ñu def ngeen lépp lépp sincèrement. ok merci beaucoup. allez bye bye. Lamine ko waaw. waaw. ah kontaan rek ak ah, di remercier sama sant rek parce que yaakaar naa liggéey bi yëpp ñoom la ñoom si jàppale génération foot te maa ngi leen di remercier bu baax et yaakaar naa instant mu Sénégal ñëpp yaakaar naa ñëpp gëm nañ football local bi léegi parce que ak liggéey bu ñu def nii ah, preuve preuve bu baax la ko ci football local bi te muy marché bu baax a bon fu mu toll nii moom. bien vrai ñëwagul mais maa ngi ci bàyyi xel bu baax a baax te dina liggéey en attendant pour su ma demee foofu bañ a traîner foofu tamit euh, bañ ki eh, kii percé wu pourquoi pas am carrière bu baax foofu tamit dina ma arrangé ñëw si équipe A Euh, yëg nañu euh, métti bu rey lañu ñuy yëg parce que euh, neexoon na trop méttoon na fële mais après depuis ñu gagné coupe bi moom neexoon na ko vraiment. waaw pour ñu gën a yokku rek pour ñu xam ni championnat Sénégal léegi dafa am niveau fu mu dem ba jël CHAN bi. gars war nañu gëstuwaat encore bu baax baax a baax ci euh, loolu moom euh, am ci si bu rëy daaw defoon naa ko équipe A bi ren ñoo defaat ko équipe locaux bi parce que mbégte la bu rëy si man quoi. xanaa jëlaat ko rek encore ak Casa Sport. Euh, doubler encore plus mhm. merci beaucoup merci